Eh, salaamaaleykum salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa diaspora bi yëpp. Douane ci eh, ci Dakar ñëw tey ci kër Thierno Xalam nag di eh, kilifa bu mag ci biir bi di si suñu premier numéro bi nga xamante ne mooy ànd suxal suñu culture. muy émission bu am doole ci TV di nuyu ñëpp di ziar di wax ne ñu ngi wàccee suñu kilifa yi seen wàccuwaay muy kilifa diine kilifa aada yi di wax Thierno asalaamaaleykum. jàmm neex naay ba su ma la tooñatee hmm. waa ma yëgëm naa baay jàmm neex naay ba sama ko laa ba alhamdulilah rabbil alamina delu naa la ziar ñoo commencé bismillahi rahmani rahim yàlla jeex alhamdulilah rabbil alamin est la sax SM5 TV. nga ne. yéen a aayata ba ngeen aay dafay neex. di seet si sa mag. yàgg na ay émission nag mais émission bi mos a def bi moo moo dàq bii laa moom. soo baaxee baax. suma baaxee nga baax soo bonee nga bon suma bonee nga bon ñoom bi dañ ngaa ci puccoo ñu ànd leen ñu rof ñoo bokk benn maam. Mm. dina commencé nii yàlla barkeel. amiin ci barke sëñ bi naa baax. sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf ci yàlla ci ah, wax ne comme ni nga waxee noonu la euh, buñ ne ngàccee pucc ñëpp ñoom ñëpp ñooy ànd ndax même Abdou Niang bi ñu àndal mi ngi dëkk Dóor. ngeen di amul benn la alors. ci loolu dañoo bëgg a wax xam kii yee Thierno Xalam ndax Thierno boo demee Jolof Thierno Bamba la ñuy wax nga ñëw Dakar ñu ne Thierno Xalam Thierno loolu lan moo ko mën. waaw Jolof Jolof yi xam nañ ne man Thierno rek simple laa dëkk Daara hmm. sant ba. gis nga fii nag su may xalam ni Thierno Xalam. pour ñu mën a parce que téléphone ba defee Thierno Thierno dafa wane Thierno Ba ci loolu la ñuy déparé euh, di la wax Thierno euh, dañoo gis ngay def musique pulaar di def musique wolof euh, yàlla dogal nag nga jógee Jolof ñëw Dakar bi nga ñëwee Dakar kan moo la dalal fii ci musique. Sénégal bi nga xam muy musique moderne. Fort Gueye Diouf. Fort Gueye Diouf. bu ñëwee Dakar jaalu ci fu nekk si buntu laa jaar. bu baax lool gore lool neex ànd ak lool. bu ma jël sama doom tuddee ko ko am tey 16 ans. Fatick Gueye moom tuddee ko ko daal. 16 ans. macha allah lool gën lool. bëgg njabootam lool bëgg ay mbokkam lool bëgg ay nawleem. mën a woy loolu yëpp macha jàmm neex na. bismillah merci beaucoup euh, di wax ne képp koo tuddee sa doom rek xam naa ne ba mu mel noonu ndax nee nañ képp koo tuddee sa doom doon juróom-ñaari jikko euh, nga tudd Fatou Gueye tudd bu baax tudd Fatou Gueye ko yiw la aussi moo la dugal ci musique moderne alors bi nga ñëwee fii ci ay duo neex finalement gis tudd Djibi Guissé yow après nga resté lan moo war a 아이 그릇에 ñu fi sax nag dafa voyage rek da dem Fuuta jaar fa rek dem Mutani te mu neen Mutani mu neen Mutani bu mu neen Fuuta mu neen Mutani bu demee nag ay mbokkam téye ko fa nag mm-hmm. loolu kese la waaye mu ngi fi mu ngi fi mu ngi fi voyage rek waaye bu ndaw yàlla ñëw ak jàmm Ceerno mm-hmm. euh, ñu gënoon ko xam ci xalam kese waaye da nga dem ba mu yàgg Ceerno di commencé di way dafa jàngal ma ci diggante bi wala dafa inspiré wu rek wala dafa nekk bambado doon ko daal di way gis nga way Aly Ngouille Ndiaye def ci clip bu bu am solo daal jéeg la relation ak Aly su ma la jaay ma doon xalamal bàyyi bu ñëwee fii nag ma seeti ko ci wax yóbbu nag mooy Basirou Ndiaye. parce que ñoo dëkkoon benn kër PA yi benn keesu ma dem fa ñu xamante mu teral ma mu dema nag bu ma gën a neex na ngay ñëw suma kër ñu koy dem di ko seeti si dem Jolof mu ne ma kaa ñu ànd hmm. su rek te safoo ma faalew ma ci foofu laa yem danaa teg sa place. tegu sama place yi ne man kaa a ànd. ku ma président Aliou Ndiaye ñun nit ku baax góor ngay wilaan seeni salaamata sow yàlla ko yàlla defal jàmm yàlla am ndam. kontaan nañu seeni salaamata sow salaamata sow sax daje fi de doon ngeen ay relation yu particulier mooy lu am solo foofu tamit Thierno sa parcours Dakar. est parce que ñu gis nañ ne képp ko fi notu xalam boo fi dégg mu neex rek bu ñu xoolee ba ci biir mooy ceeb si mel ne ñoom Salam Diallo ku ci mel ne ñoom Kumba Gawlo ba ci Kumba Gawlo sax am na ay son pulaar yoo xamante ne ça mais sur le certain inspiration bi ci yow la loolu tamit sa parcours est-ce que mën nga ñu diggal lan moo tax loolu. nga xam ne sonn naa ah. waaye comme ni ma waxee rek dama ñëw ab yu baax laa jógee. ñun xarab géwél mu def fi deux mois ma seet ab juba ma ne temps yi gis fa géwél laay xalamal mu ne ma yàlla lépp barkeel parce que bu neexoon nekk ci Fall Gueye doomu ko yëgal ma présenté ko Fall Gueye Fall Gueye ko reer mu may ko jaar or mu jox ko soxnaam surtout bu Fall bi ay dara yàlla na ko yàlla ay jana kii nag moom escalier nag ñëpp ñoo koy déglu dama ñëw bokk nag

islam bul xaramal kenn. mu gawlo Aïdi Samb Mbène Diatta Daba Seye. dégg nga li may wax. Euh, macha allah même Assane Ndiaye. Eh. xaramal naa ko album. bu Ndiaye Beng. Mm-hmm. Euh, Salam Diallo. mu nga xaramal ndeysaan parce que nii lañ mos fii parce que am yow reprise bi nag ma ne waaw ah, fat lan la fat fatte lan lan la fatte sax laa jëwoon foofu ndeysaan bu njëkk-njëkk rek <laughs> waaw bu may gedd nag. Eh. bu ma xalawee morceau boobu nag day saan bu commencé di jooy rek. Hmm. Kéba Seck ne ma xam ne Thierno war na dem. la jotee rek lay wër. ku baax. Eh. keroog maa moom daf leen naan benn affaire bu neex. parce que 31 décembre. Hmm. lay ngal bu njaay. mais xalam Pambay moom fa yóbbu. ñu teral ma macha allah xaalis bu lool na. ba jël cent mille franc wax salaam ma ma Thierno ma ko laal. dama lay dolli. macha allah ma jël xel ma ko jël. mu bëgg damay wax ay eh, kaay mu taxaw ma ne pap ma ne laay. salaam Diallo de doxal naa ko ñaar fukki junni. bu bañ. nee na su fekkee fii am jiwal da koy teral. gis nga. lay nga boo ko bëgg a ko salaam ma ne ko daan ma ne ko may naa la bee umra. la teralee. Eh. bu ko nëbb. moo tax yàlla mu bi ni'mati rabbika fa haddis. dinañ ñëw si loolu. ndax déglu euh, benn laaj boo def ak mooy fi ñuy wéyee Baye euh, Baye Niass je crois euh, moo doon aw. mais ba dégg mu a faante. mooy mooy muy muy nit ku yaatu. trop ku nit ku. gaaw a jooy waaw gaaw a jooy dafa baax. bëgg yaayam aussi. kon dara rek eh, muy lu am solo. donc ak frère bant bi ñoom it dégg naa seen parce que maa leen boole je crois mais bi ñëwee fi defal nga leen note bu yéeme te ñoom genre rab la ñuy def loolu tamit lan la yow da nga am fooy gëstu wala jinne moo la inspiré wala lan lan la secret bi xam nga mbalax maa ngi dañu am seen i xar spécial. Mm-hmm. tàggatu Serigne Touba wala ñu jàng xasayit am seen i version spéciale. rappel tamit am seen version. dara mm-hmm. ko ci sa morom. kon boo joué euh, da ngay xalaat. moo tax ku ma wax ne Thierno xalamal ma. Mm-hmm. dama la wax ne woyal mu envoyé ma. ma déglu ma déglu d' accord en tout cas am na solo te nit ñaa ngi lay bëggee di a ngi seetaan euh, na Thierno ba tey ndax lim nga ñi xalamal ñëpp waaye dafa benn affaire bu ma jaaxal lool ndax soo yoree sa di xalamal ñëpp nga am sañ-sañ tuddee ko Abdou kan mooy Abdou ci yow. laal nga ma nag laal nga laalaake. laa nga nit ku baax laa nga nit ku tedd parce que xam nga su may def émission bu waxee maa Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi gërëm suma papa ak suma suma imam mooy suma sëriñ waaw ah, loolu de yéeme na Abdou Sarr mooy kan teral ay wëlëreem am na njëriñ bu mooy seexu galaay njaay ak abi waat waaye xam ni foor bu nekkee moom loo defaru defar da lay defaraat loo defaru ci zaahir ci baat ci gauche droite parce que bu nekk bu la njëkk a wax ci àdduna del muñ kenn del alors que waaye muñ yombul dem lu deel muñ bu la may kan moo la sàkk man xanaa yàlla bu waxee ñaata doo ko doon par jour ma ne ko xaw ma moom est-ce que rey na la ma ne ko déedéet est-ce que ñaan na la nga bañ ko mu bañ laa may ma ne ko déedéet lu tax ma soxla ñu dooma baal yaay kan souvent jigéen ñi ku nekk ak ñoom mm. di leen mu ñor mm. seen jigéen leen na seen doom seen bopp seen bopp mm-hmm. ñoom seen loo jigéen sa boo nekkee sa soxna say mbokk buñ fa ñëwee dañ la bàyyi say mbokk mm-hmm. waaye ay mbokk buñ ñëw dina seet mm-hmm. di ko seet bu ñu waaj ñibbi xam lu ñu wax waaw doo gi ñii di dem de <laughs> moo tax wala euh, fa wuti ko am ko yomb na eh. nga jëfandikoo ko yomb na hmm. waaye lu jafee mu ràpp ànd ak yéen man suñu yàlla man seero bul ñaan bu ñaan kër gu hmm. la laa ñaan nga ko rafet ak ah, am solo ma ma pare ma ne ko waaw ko boo ko reesee nga ne alhamdulilahi rabbil alamin boo yow yow suuf ay neuf heures eh. nga xiif ak lekk. bu reesul doo lekk moo tax mu àdduna boo amee ay millions. Eh. am ay milliards. day ñaan mu ràpp ak jàmm ànd ak yërmande yàlla def ma xadar sa moom dëkk moom kër gu mag bu nga si ka am mbaaw hmm. benn soxnaam si Yaasin moo nekk almarinas mm. waaye Fatou Gueye awo Astu Jaañ lii mooy géer wala ma ne lii mooy géer te mm-hmm. lii mooy ñeeñu di dee rafetal musique moo taxoon ne man ñu di ko dégg di ko dégg démb mm-hmm. ndax musique dafa am barke bu jaaree ci yoon mm-hmm. ndax xool lay naqar sax ñu musique di déglu nga fàtte. nga fàtte. waaye nag léegi bi ah, yaakaar naa ne barke bi sirru bi dañ na ndax boo seetloo bu njëkk da ngay dem studio dafa un mois. bu hmm. soo boo seetloo kese di passe ay quatre-vingt nangam nangam. waaw kese léegi boo leen hmm. euh, neex. Hmm. di ko liggéey. kon liggéey. léegi répétition amul. Samb Kola Thierno dañ daje studio. ma xalam nga woy eh, une heure de temps ah bi def ci marché bi moo tax musique bi barkeelatu. merci loolu dafa jàpp sax ci art bi léegi cinéma da ngay xëy rek convoqué artiste ñëw leen ñu daje yow boo ñëwee yaay paa bi kii mooy mère bi kii mooy tante ji yow musique ngay def kee day jaay légume kee nangam foofu ngeen inspiré wu donc du ne seen biir da ngeen ñëw loolu mu dem bu leen ci waane ngeen mokkal en tout cas lii nag lu mel xalam wala ko waraa moom du fi jógee hmm. ndax góor ñu gar nga xam ne ko xam nga musique bi ndeysaan ci gën a neex ci gën a neex am na li gën a naqar ci biir am na xoolal ni nii ma toog yow nii loolu su ma la invité ma nii nga xalamal ma nga teral ma nga ñëwal ma sa bopp kon weer wi kay dañuy wooteel di waxtaan ma xëy benn weer boo xam ne dag may off mel na xamatu wóllare amatul kóllare bëreetul ndox sa amatul mun naa ko xam ne par benn benn nga ko gis hmm. te yooyu nag ngor nag bu jeexee si àdduna mooy des dara des tuuti dara des tuuti eh, donc Thierno hmm, ni ñu koy ni ñu koy jeexalee mooy ambiance musique léegi nag yow da nga def ay single yëpp nga way nga fi Molo way nga fi Ibrahima way nga fi Talla way nga fi famille Sang yow yaay seet euh, yi nga xamante ne daal dina ànd ak jàmm nga defal bay bi soxla naa sa bu baax euh, te bëgg naa aussi aali muy njaay boobu nga ñëw nag même bu dee une minute la eh. su ko defee euh, ñu ñu campagne ko parce que laaj guma la nag li nga xamante ne fa la ñuy tëjee campagne nan ngeen ko fas yéene defee parce que léegi moom mel na ni leer na en tout cas pour le 24 di le 31 te Aliou Ndiaye dafay dafay posé candidature nan ngeen ci taxawee yéen ay àndandoo Ah, président Alioune Ndiaye ñu koy ñaanal yàlla rek yàlla ko yàlla may ndam bu ko yàlla may fay xolam ko koy may ndax ko ko engagement la nitu principe la jabaram sax damay wax ne président Alioune Ndiaye mën na politique man lu tax man maa mën a parce que du fen waaw waaw wax nga dëgg donc nag su ko jigee eh, eh, yal na ko yàlla may ndam parce que dafa am ñaan waajur te dafa respecté ay mbokkam te dafa respecté ay wëlëreem mm-hmm. xam nga ne su ma joxotee numéro boo ko wooyee da lay ba mu lan lay jotee tamit bi mu nit ñi <laughs> kon yàlla na ko yàlla defal jàmm yaa koy war parce que kon nag da ngay enchaîner directement rek ci sama Aly Ngouille Ndiaye ñu ngi xool. sax beneen bu bees ah, kon nag euh, loolu bu ñu télé ko njëkkaan SM5 TV ñoom sax boobu. ngay naan taabulale bu la ñawataan

émission ànd sukkal suñu culture Sen TV ñu seetaan tey Thierno Xalam Thierno sa kàddu gu mujj temps bi faj nañu ñaan ngay sant ñaan ngay gërëm ak ñaan nga parrainer sa émission bi waaw ah, maa ngi nuyu Sénégal di jaaree ñëpp di ñaan yàlla ñu jëm ci ay élection yàlla nañ ci yàlla may ndam ñu commencé ko si bisimilahi rahmaani rahim mu jeex si alhamdulilahi rabbil alamin képp ci yàlla may ndam rek demal Sénégal la waaw président Aliou Ndiaye yàlla am ndam di si bi may sekk bu baax nag di xalifam Bachir Moussa Ndiaye moo di Ibra Diop séeri Rama Ndiaye yaay Xaadim yaay Rasul di jaare nag Cheikh Baye Daara Ndiaye boobu fi ñaan man ziar ñëpp daal Mbaye Diouf Matu madame Ndaw madame Ba ziare naa leen di ñaan yàlla daal ziare ci bis bi jigéen boo xam ne fu ma fekk mu teral ma fu ma ko fekk mu teral ma may nekk baax dana am jàmm jàmm neex Samba Kolaba, Ayamba, mais jox sama compte bi rek. dafa ma arrangé. àdduna kenn du ko lekk kenn du ko naan jëfam dong la ñuy nettali waaye sama xarit sama doomu yaay maa la pala dee la gémbo lamb mi atal li yéene seeni gay na ba gaajigo asi gaajigo jom gaajigo jaamu neex maay ba yuma moji baba moji bigel banata fama basiru kamara nit bu baax la fatima soppulu jeere mayam soppulu jeeri yasin salalam toro bisi se mo sen yaay ne sa job notaire yaay Bisra Sané suma mag la suma toogee dama koy e fàttali jaamu neex ama ñu Maître Alassane mm, Sall la fana mel na sa maam si Mohamed mooy awa mbay la maa tudd suma doom bi ak Sadio su ba léegi di daw suma xarit la Shabby Bubble Jello, what a fella. sei, ma che sopra lo gire Sei così da libri miei, mi condanno

sax dañ ko soxla tey Sénégal muy jàmm kon yàlla yàlla defal jàmm mu nekkoon seen émission ànd sukkal suñu culture ci SM5 TV ñu seet seen seen xalam jërëjëf ba beneen yoon ci yàlla kontaan na yàlla yàlla naa leen gudd fan wér ñaan ñëpp jàmm ñaan Sénégal jàmm yàlla may élection yu sedd guy élection koor moom mën naa dana sedd ndax seytaan bi dañ koy yeew ci koor bi kon merci beaucoup en tout cas ba beneen yoon incha allah ciao Vous êtes acteur culturel, vous optez pour la culture, vous optez pour le divertissement. Bienvenue dans les fréquences de SN5 TV, la télé autrement, la télé 100% culturelle, la culture au diapason des cinq horizons du monde.